tijaani sama waay la camiñal jaara busu wala man sebi jaara jurujub ak ñi nga xam ne moo di macha allah ay nit yàlla lañ di ñaan macha allah waaye tey nag dañoo déplacé wu ñëw fii ci dëkk bu sell bi ah yaakaar naa nag ku nekk xam na ne dañu ñëw tey Mbàkke Bawol waaye tey dem dañoo seet ci kenn koo xam ne macha allah ci li muy yëngu daanal la ci mu di ay Aysatu Fay jagle siin ku nekk xam na ko macha allah muy saltige bu mag a mag yaakaar naa nekk fii ci Mbàkke nag waaye tam dëkk fii nga xam ne moo di siin ku nekk xam na ko muy saltige bu mag duñ ko présenté kenn ci àdduna moom lañ seet tey war a waxtaan ak moom ci li nga xam ne moo di xam-xamu cosaan war a ci moom li nga xam ne moo di seet war a waxtaan ci moom li nga xam ne lépp luy xam-xam rek macha allah ci Sénégal ak àdduna ku nekk xam na ne li mu yor. ah daf ko donna ci ay maamam waaye li mu yor daf ko donn ci nga am ne ay waajuram la muy ay papam wala nga xam ne moo di yaayam tey dañoo war a waxtaan moom ci lu bare bare bari bari ci àdduna bi tey Aïssatou dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ñu dugg ci ci waxtaan bi dañ lay bàyyi nga présenté wu Aïssatou jagle siin jagle siin waaw borom siin cum asalaamaaleykum maa ngi lay njëkk nuyu di la bu baax di la dalal aussi di la ci yoonu Dakar bi ndax déplacement waaw ñu ciy kontaan bu baax a baax ndax euh, bu la neexoon tamit ñu woo nga bañ a ñëw mais loolu yëpp yitte la yal la yàlla fa yiw ñu bàyyi la ak yàlla ak yonent bi ak jëmu Serigne Touba. may nuyu waa àdduna di nuyu waa Sénégal di nuyu tamit waa mbokku jagle siin waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaw di ñuy waa Mbàkke ñëpp daal àdduna yëpp maa ngi nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm alhamdulilah. <laughs> macha allah Aysatu jagle siin ku nekk xam na ne macha allah saltige yi bëri na ci mi waaye ku mel ni yow yaakaar naa jafe jafe na parce que tey maa ngi déplacé woo fi nga xam ne moo di ndakaaru ñëw fekk la fii Mbàkke Bawol te Mbàkke Bawol li nga fi nekk sa bariwul naam mais boo fi nekkee kër gi day fekk dell parce que macha allah jaamu yàlla yi bëri bëri yaay fajteen soxla mu jóge ci yow macha allah tey ñu war a waxtaan ak yow ci li nga xam ne moo di xam-xam seet tey ñu waxtaan li nga xam ne moo di cosaan ay satu ñu lay wax rek métier mi nga nekk mu di euh, métier saltige métier euh, sëriñ euh, kañ nga ci commencé nekk ak fan nga soxe ko ci li xam ne mooy métier bi waaw métier bi de bi ma ko commencé ak léegi def na at ak juróom-ñeenti weer. allah akbar. moo tagul ñaari at. Hmm? waaw nga mel ci li nga mel. di faj li ngay faj ci àdduna bi. téléphone moom xam naa dañ koo fay sànq ba léegi. mu ngi sonné. téléphone Europe Asie. dama koo fay ndaxte su ma ko fayul émission bi du <laughs> loolu kay maa ngi xam dara baag sëñ Saliou. voilà léegi fi ma ko jëlee mooy ne maanaam sama maam yëpp daanaka ay borom xam-xam lañ. allah ba jamono ji may wax yow nii. bu fekkente ne samay côté yaay ak sama côté papa ku ci nekk dafa am la yàlla dëkk waaye man ci sama bopp nag personnellement dafa am loo xamante ne loolu sama yëfu bopp la maa ko moomal sama bopp. Allahu akbar. ndaxte bi ma mbir mi di dikkal ci li ma dikkalee loolu moom du ma ne dama ko doon ci kenn loolu maye suñu borom. may yàlla. waaw. Allahu akbar maa dikkal complètement muumalu ma. gumbo du ma wax du ma gis du ma xool ne du ma duggoon tamit du ma fa génn toog naa foofu lu ma semaine boo xamante ne kenn gisuma ci néeg bi wax waaw lekkuma ma kenn gisuma gisuma kenn tamit. mënoo wax mënoo gis. déedéet une semaine. une semaine ñi may waxal daal bu ñëwee danaa toog ak ñoom toogaay bi tamit du la dul jógal ñu julli ñu def suñuy zappe di julli di wirdu ba keroog 5 jot ñu dem man ma des. allahu akbar waxuma ak kenn. ca naa ko defee ba une semaine du moo tee ma xëy benn jour jékki-jékki mel ni ku commencé gis. leer bi ma gisee leer bi tamit ma jóg fekk ci guddi gi ñu ne da ngay wuti ay leket nga ñëw samp ay xam ma yow fajar sañse ba jekk mais bi ma doxee tuuti rek mel ni euh, gumba boobu daf maa commencé dikkal. allahu akbar ma dem ci benn Dakar toog fa. lu mat ne lu mu boo xamante ne ñu ngi may wër ba yaakaar na xëy na affaire bi daf maa yóbbu. ndax ku toog une semaine gisul waxul lekkul bu jékkee jékkee disparaître mën nga ne kooku kat fu mu ne nii mën naa sànku ji ci àll bi. ñëpp tamit annoncé. ndax réer na réer na réer na fu ne ma dugg fa ñoom tamit fu ñu dugg fa euh, ma ñëw fi ma toogoon ma jékki-jékki gis alom nga xale yi di for alom fekki li ma sañse nag kenn xamul mu doon sañse naa sama cub bu rafet su def sama kol mais damaa jékki-jékki jël dàll yi laxas ko ci benn kol bi takk ko def jëfu dof ba ma ñëwee fekk xale yi xale yëpp daw ñii di daanu ñii toogoon ci suuf daw hmm. ma ne leen du ma dof damaa réer xale yi ne déedéet lii wóorul benn xale bi nekk ci kaw ne kii doful ndax dafa sañse mais finalement wóoruwuñu ma toog ci foofu noonu ba gee jot ndax fi ma jëm xaw ma ko mais yàggul dara rek li ma doon dikkal dikkal ma leer bi commencé maa dikkal ma yëkkatuma sax fan laa nekk mais samay waa kër moom jommi nañ jaaxle nañ tamit bi ma demee ba waxtu bi nga xamante ne moom laa def ci àll bi ci temps bi ma fa def ma jékki-jékki benn suba teel daal di dugg si hmm. jour bi ma dugg see nag moom ci laa indaale sama yëf ci laa indaale samay mbir. allahu akbar. ci laa indaale tamit lépp loo xamante ne moo ma desaloon pour ma dem jëli ko ci li ma ko jox nag du ma ne kenn du ma ne nit du ma ne sama du ma ne sama maam bi nekk sàtt gi damay naan loolu yàlla moo ma ko jox. ndax liñ ma joxoon ma teg ko ci sama loxo bii yóbbu nañ ma hôpital pour defal ma ay perfusion mais loxo bi mënul dañ. du hmm. ñu daj ko mais loxo bi dañul. ma jékki-jékki ci hôpital bi dem bàyyi leen fa li may wër ndekete lépp ci loxo bi moom kenn mënu cee def parce que. Euh, piso bi mënu woon koo jàpp. d'accord bi ma demee ba samp samay xam ci laa jël loolu def ko comme ni ma ko waxee woon. Mm-hmm. waaw lii daal la ma dikkalee kon du ma ne damaa doonu baayu kenn. Mm-hmm. sama baay. Mm-hmm. waaye doonoo sama baayu yaay mais na xam-xam bi nekk ci ñoom mu ngi man. ndax nekk ci maam ci set bala ëppee. waaw nii la mbir bi demee. macha allah am na solo explication yi euh, li nekk ci euh, euh, set ci maam la koy jëlee oh, loolu yëpp dal la fan la dale woon. sama muy jaxaaw siin. muy jagle siin waaw. jagle siin. waaw macha allah nekk fële ci jaxaaw siin. waaw hmm. macha allah bi mu la dalee aussi tam allah comme ni nga wax rek expliqué lépp yaakaar naa euh, ngay continuer ko bi ngay bi nga ko continuer automatiquement sa jaar-jaar lan lan lan nga yëg ci yow maanaam xam ne dëgg dëgg xam-xam nekk na ci yow lan nga njëkk a def ba xam-xam ne xam nekk na ci yow. maanaam test bi. test bi li ma njëkk a def mooy ne damaa yeewu ci saasi rek ma am sama benn xarit bu ma la dëkk. ma woo ko téléphone ma ne ko ci ay waxtu yu néew da nga gis sa jëkkër mu ñëw indi xat-xat bu metti te boo ci sàgganul yow ak sa wujju dana leen may baax ci saasi. alhamdulilah ma ne ko waaw mu ne ma yow de yaa ma yee ci lal. noonu la jógee rek gis nga diggante fu muy defaree ndékki ak fu muy toggee rek jëkkër ji yuuxu leen ci buntu kër gi jour boobu la may moom baat ak ñaaram bi nga xamante ne pël la woon. mu ne ma ndax dangaa demoon ci sëriñ mu wax la ko parce que yëgul li xew ma ne ko déedéet mu ne ma kon maa ngi ñëw mu am foo ma yóbbu ndax kii kat may nañu baat man fu mu ne nii oto laay xaar sama wujju dem na. ah moom ci la duggee saret ak beneen xaritam ñu ñëw fekk ma fa bu ñëwee taabal bi ma toog tam taabal bi nekkoon sama saal moom laa jël benn leket teg ko ci kaw taabal def ci ndox muy jooy mu ne ma moo xew ma ne ko dara mu ne ma lii nii kañ la ma expliqué ko lépp li nga xamante ne mooy li mu soxla woon mu ne ma nii la demee. mu ne ma léegi loo may defal ma ne ko danaa ma ne ko sama xam yu bees yi yaa ci nekk a sangu moom moo ci njëkk a sangu jour boobu noonu moom laa njëkk tamit test jour boobu noonu mu dem indil ma ñeneen ku ma xam Fatick tamit moo tax nga xam moo xam nga xam macha allah am na solo muy test bi nga xam ne test nga ko ak sa benn xarit mais ñu gis ne en fait loolu loolu yaakaar naa seet la euh, wàllum seet euh, yàlla la cee may. waaw wàllum seet moom tey dama yaakaar bu ñu tegoon dara ko tey mën naa ne su ma jëlul premier jël deuxième Sénégal kenn dàq moo fi seet ci ndox mi may tiim di seet. ndox ngay seet ndox kese. wallaahi ndox kese. ndox kese. allahu akbar. waaw te ndox am na soo ma woowoon nii. Mhm. su ma neexee du ma naan ndox damay tëdd sama néeg jaaxaan di la seetal. téléphone comme ñu nekk Europe ak yooyu. dañ naan seet faral sa loxo ak ay defal nii wax ma sa tur yow ku nekk Europe ak yooyu nga koy seetalee parce que xam nañ seet moom yàlla may na la ci. ku nekk Europe te nekkul alxames ma toog fii wala nekkul yeneen bés yoo damay toog sama kër. Mhm. damay tëdd sama lal wax la nga wax sa tur ak sa turu yaay ma jaaxaan di la seetal. allahu te sa set bu rafet amul raté. allah nee naa la Sénégal kenn dàqu ma fi seen. macha allah amul. saltige macha allah saltige Faye mu ngi noonu dégg ngeen rek li mu wax yaakaar naa daw na yaram nag mais di wax rek numéro baa ngi noonu daw ci bas d'écran bi képp koo xam ne soxla nga ko rek moo xam foo nekk rek même bu dee yaa ngi Europe sax numéro bi am na li nga xam ne moo di WhatsApp fépp jafe-jafe boo am rek incha allah dina ko saafara ginnaaw yàlla saltige da ngay seet mais wàllum faj gis nañ ne néeg bi bëri na ay bagage wàllum faj rab li nga xam ne moo di jinne wala nangam saltige ku nga xam ne saltige lu lekk lay saltige yàlla may na ko muy rocce ay affaire yow sa mbirum saltige parce que saltige dafa yomb rek saltige laa nii rek dafa yomb ni nga muuroo nii yow ni na ko saltige yow waaw ni ma muuroo nii silvise nii saltige day tilim salte ah mais yow gisuma ci yow loolu waaw loolu la allah akbar mais man nee naa la dafa am lu ñëw ci man te bu muy ñëw ci man ci ci ci ci diine la ñëwee ci man allah akbar yaa ngi koy wax julli ci man dañoo ñëw ci man ci julli ak wird allah akbar kon bu ñëwee ci man ci loolu mënumaa def leneen lu du loolu nee naa li ma yor du ko basé wu ci ay saltige dama koy basé wu ci mooy yàlla bu ñëw ci man. allahu akbar. Euh, damay faj mbiru saytaan dama koy faj. Hmm? damay faj ku yore faru damay faj hémorroïde. muy tëj damay faj néew kàttan. damay faj tamit ndox mu siti dama koy faj yooyu yëpp dama koy faj. non néew kàttan moom dañuy may sàmba moom ko ci may laa ilaha illallah da ngay faj. waaw. rab damay faj rab damay faj saytaane damay faj ndox mu siti hémorroïde néew kàttan yaa may dégg bu baax. Hmm. ku bugg a tukki wala ngay lijjanti ay kayit muy te loolu. xale yi loolu bëgg. butéel yaa ngi ne gis na ko. allah akbar nit ñoo ci butéel yi après mais li gën a am solo mooy euh, ñi nga xam ne faru rab. Hmm. dafa bari ci dëkk bi. xale yu góor yu bëri nangu doon takk jëkkër jabar. Hmm. jigéen ñu bari pour ñu am jëkkër problème la. loolu loolu loolu est yàlla may nañ ci. waaw loolu boo gisee mu am parce que Sénégal li ko yàqu mooy ku nekk danga ne borom jinne laa bari na bi de. ba tey jii ku gént ku tëdd ba guddi nga gént di tiit sax boo demee ci sëriñ mu ne jinne moo la jàpp. allahu akbar. te gis nga jinne du moromu doomi aadama. Hmm? ku fonto mu waaw. bari fi ay sëriñ yu bari ñuy naan damay faj jinne mënuñu ko parce que da ngay dem ci sëriñ mu ne la jinne boo bu sooba yàlla boo ma fayee dama koy rocci hmm? déedéet hmm? jinne kenn mënu koo rocci ci waaw parce que ku dul yàlla boo ne damay rocci jinne waxoo dëgg wallaahi parce que jinne ci boppam yow yàlla moo la bind bind ko kon yow mi nga xam te ne yàlla da laa bind bind jinne boo bëggee rob ci jinne loolu dana day waar wallaahi akbar jinne nekkul lu ñuy dindi ci nit hmm? déedéet mais bu dee da lay yàqal da defal nit ki ñaan boo xamante ne maanaam yàq boobu dootul am te mu tare di ànd ak yow jinne ku ku taxaw ne man damay fa jinne dama koy rocci bu yeboo tegal déedéet yow nit nga jëm nga bu la yàlla bind bind ko kon mënoo ko rocc da koy bàyyi ak moom mm-hmm. parce que dafa am yu mu koy wan mm-hmm. xëy na amal la ko njëriñ kon boo ko roccee da nga koy lor mm-hmm. mais da ko ba yàq googu dootul am bu ko defee mu continuer di ànd ak parce que yàlla moo ko boole ak moom dafa bëri Sénégal maanaam boo xoolee tey téeméeri personne tey ci ay sëriñ nee ay borom jinne lañ mais est ce que tey boo leen wanoon jinne ko gis est ce que mën ngaa taxaw ñu woo jinne jinne bi ñëw taxaw mais est ce que bu fekkonte ne moom jinne ko mu ci ñoom jine yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi di tasaare di def leen nekk kon est-ce que ñoom ci wax. ah <laughs> fan yii passé wax naa ko sama benn émission. <laughs> may la léegi yéen da ngeen ay borom jinne ngeen jinne bi nga xamante ne mu ngi dëkk mbuxu buxu di jóge buxu di dem campement Ngeekor te lafañ doo leen ci wax. allah akbar boobu gis nga ko yow. jinne bi nga xamante ne buy traversé tali bi oto bu mu fekk mu jublu day def soq. parce que lafañ la waaye jinne bu lafañ kon xanaa borom jinne yi kon gisuñu ko. ah illah. te mu ngi dëkk campement Ngeekor te mu ngi waaw waaw moom buy traversé moom temps lay jël kon bu dee ñoom ay borom jinne lañ nañ ko xool gis ko soog yi fi gisoon ci ginaar soog yu garaaw yooyu yëpp moom ñoom moom moo ko doon def. allah akbar waaw moom rek duuru day dem day dem jinne la moo ko def. maa la wax day dem ba côté Pomme Noire bu Kaolack. Pomme Noire bu Kaolack waaw. bu fa demee parce que ñoom dañuy wër te ni ñu amee yitte noonu la ñu amee yitte te maanaam tey jii nii foo gisee lafañu nit buy traversé day jël temps parce que amuñu tànk. waaw kon jinne bu lafañ moom day def yëfu màtte kon moom bu mu nekkee ci Sénégal bi di ruube di def lu ko saf lan moo tax ñoom kompolo ñu def ko fexe jële ko Sénégal wala ñu defal ko benn te kenn ku nekk di lim naan am naa téeméeri jinne am naa mille taalibe jinne dëgg la doy na waar day na waar allah day ah, moo tax léegi nag farra montu la jóge nii parce que ñëpp moom la ñuy faj te fajuñu ko waaw vrai waaw lépp moo dugg ci léegi ci doomi aadama yi parce que jinne aussi amatuñu place garab yëpp lañ gor kon dañuy ñëw dugg ci doomi aadama yi kon moo tax jinne yi jógee foofu dugg ci réew mi dugg ci doomu aadama yi accident yi bari loolu loolu la a nit mer jam sa morom wala jam sa sa sa ko bokkal loolu jinne moo koy def fekk dañ lay xaftal jinne moo lay xaftal parce que mooy dugg ci yow di la yàqal di la def loolu di la tiital di la def loolu nekk amatuñu dëkkuwaay dëkk bi mu àll bee tas léegi seen solution mooy dugg ci nit yi di leen tiital ak di leen yàqal ak di doon seen jabar ak di doon seen jëkkër waaw bu dee xale bu jigéen boo xasee am faru rab jeex na dootoo sëy bu dee góor boo xasee am gëlul jinne jeex na sayee dootoo am jabar koo nekkal mu tas te moom doo ko am sax ci sa jabar allah akbar am na solo li nga expliqué bu baax a baax parce que lii vraiment euh, dafa am solo trop trop ci réew mi yàq na réew mi mais dañuy dugg tuuti li nga xam ne mooy wàllum xam-xam wàllum këyit wàllum li nga xam ne moo di euh, papier dégg naa yàlla la cee may ki lijjanti papier moo xam visa nga lijjanti moo xam da nga dem ba Europe war liggéey liggéeyoo waaw waaw Europe dañ lay soxla. waaw Europe de li ma fa am ci ay clients aw ma ko sax Sénégal. la bar du France du Italie du Amérique. du Espagne du Londres Angleterre du Londres. Mhm. du fu ne ci pays Sénégal foofu noonu. fu nekk chaque jour ba tey ji ma xam yoo nii am naa six yóbbante yoo xamante ne benn GP moo ko war yóbbu mu dem France. allah akbar chaque jour li may liggéey fa du ma ko liggéey Sénégal. Hmm? te maanaam bu dee ku fa tëju mënatu la génn. bu dee ku war a ñëw parce que da gis ko am foofu ñaar fukki at moom lu génn. waaw dama lay liggéeyal par intervention te ma la gis. yooyu da nga ciy aay yow. comme vingt ans Europe. vingt ans di nga fayee bàyyi waa yow. rap dafa eh, bu dàkkaloo man ngay wax la ci yow. su ma la déggee téléphone naa la dégg eh, bu ñu fonto ah. yow gën nga loolu yow muy. naa la dégg la gis dara. gaa ngi lay dégg de internet bi eh, adduna yëpp a ngi lay dégg. waaw waaw loolu moo tax. parce que am na am xam ne 30 ans mënuñoo ñëw Sénégal waaw ba seen bopp yaakaar ne ñoom dañoo dee. ñu bëri ñoo xamante ne buñ ma déggee wax xam lii lii am na dëgg la. wàllum kaso dégg naa yàlla may na ci wàllum kaso. waaw wàllum kaso nga nga nekk Sénégal naa xam sa tur ak doo du ma la jox loo lekk du la jox loo naan. luy nga féer mu daanu. déggoo li ñi may liggéeyal Europe ñuy génn di ñëw fii nii am na ñoo xamante ñu bëri du ma leen jox dara. parce que ku amul kayit foofu noonu kenn du lay bant ci GP. parce que da ngay daw la laq kon nooy jëlee GP. yu daan lépp rocc à distance nga koy def. da na. allahu naa xam sa tur ak sa turu yaay. sama gars yi mu ngi noonu saltige fay nag euh, jàkkaarloo nag saltige bu nekk mais tey saltige fay laa jàkkalool numéro baa ngi noonu daw ba d'écran bi képp koo xam ne soxla man tey maa yëm ba xamul lu may sax mais saltige yow nu mu demee noonu allahu akbar ki nga xam ne dafa nekk tey Europe mais am na kii mais bu mu déposé pour mu ñu jël ko liggéey léppam day yàqu. lan mooy problème bi loolu. waaw kooku ñaari mbir mën na ko def moom nga balaa nga fay jóge balaa nga jóge Sénégal fii ñu def ci yow loo xamante ne même boo demee doo tekki. ndax noonu dañoo bëri doole. benn bi tamit mën nga yore àndandoo boo xamante ne maanaam même boo demee tamit doo doon dara. boo déposé du génn boo liggéey mu yàqu boo yaakaaree mu tas même boo fa demee tamit loolu nga fay nekkee. Hmm? waaw mais kooku su ma déggante ak moom bu sooba yàlla aajoom dana faju. allahu akbar allahu akbar. saltige yéeme na li ngay wax man damay dem ba euh, doy waar mais wàllum feebar gis nañ ne dëkk bi feebar yi bari na nit day feebar kenn du xam lan la wàllum li nga xam ne moo di feebar bari na ci réew mi. di jeex takk boo demee hôpital du ñu gis dara. waaw feebar bari ci réew mi mais feebar de bu fekkente ne ngelaw seytaane moo la dal walla muy jinne moo la dugg wala muy dañ laa liggéey wala ñu sànni la porte yaa nga ci gor. waaw eh, tal digga nag yaa ngi dugg ci ay. Euh, wala bu dee góor waxambaane yu takk la xala. boo ñëwee ci man loolu ci kàttanu yàlla. buñ takk xala ba nga ne nooy nepp doo jógal dara. ba ba sa man ngay waxal de. ba sa ngoro waaj tas. waaw jokkool ak man. loolu la bëri ci réew mi. moo tax Sénégal sa téléphone nag dina sonn ci loolu ba sonn ci loolu. parce que ñi ma xam ñëpp. Mhm. laa ilaha seen seen tas. waaw seen jabar ñibbi na. moo duñ benn bu àgg. déedéet. allahu akbar yàlla may na bu baax a baax a baax. allahu akbar. ci lu day waar loolu amul xaar. Hmm? da ngay def tey gis tey. fët fët. boobu mooy urgent. amul xaar allahu akbar urgent. waaw ah. saltige fay dafa bari ay façon te ñun def am lu ñu dul faj. man ku yore ay rab rab laa xam nga rab bokkul ak faru rab. waaw te ñaari tur yu a niroo. rab ak faru rab bokkul. dañuy naan rab ne faru rab. des fois day dem ba nga xam ne day jaxas say client nit day ñëw na la diw moo boole ak yow parce que bu mu feebaree yaa ko faj wala yaa faj naa nga ma. man hmm. bokkut. ki yor rab kooku day daanu ay rab ñu tuural ko ay soow yóbbu ko ci maanaam euh, guy wala dara foo xamante ne ay rab lañ fay tudd du ko faj. Mm-hmm. du ma xaw ma sax nuñ koy fajee. allahu akbar ko faj fukki ngelaw saytaan ak juróom yi ma xam ñeent yi laa faj ñeent. liman ma nga ne fukki. fukki ngelawu saytaan. waaw ak juróom-ñaar yi ma xam ñeent laa ciy faj fukk ak ñett du ko faj xaw ma ko sax. allahu te du ko jéem mënu ko xaw ko. yàlla mayu ma ci xam-xam boobu noonu te duma ko jéem te jarlu ma ma koy wuti fukk ak juróom-ñaar laa set ngelaw ñeent laa ciy faj fukk ak ñett duma ko laal ndax loo mënul da nga koy tege ne le da nga ne le doy na waar doy na ñu dugg tuuti ci rek yi nga xam ne moo di xamb yi gis nañ leket yi ay béjjën ay pettaaw gisuma mais lii lu mu demee nii lii yëpp na ngay comprendre ne bii nekk lii lay faj lii lay faj béjjën yi li pour la waaw béjjën yi de lii moom pour kaaraange la lii moom pour kaaraange la ndaxte boo gisee tey lu ci mel ni bii. waaw wan ma ma xool. xam nga bii moom. gis uh-huh. nga ko. li dama yaakaar ne butéel la butéel bi gisoo fenn fa bënn gise ko ni waaw lii noo ko jël sole ni lii butéel bi dama yaakaar ne kemtaan la ndax lii nga gis nii. xëy xë xëy na xëy na bi de. ñetti butéel ñetti béjjën la yu ñu soog ba pare. lii tamit ay reen la yu ñu defar ba pare laxas ko kayit laxas ko tamit li nga xamante ne mooy ay buñ. meex dugal ko. muy xanaa jinne koy dugal lii xëy ci bunt moom lii yëpp na na ay kaaraange la ay kaaraange yoo xamante ne kenn taanu yàlla la. allah akbar ndax li dama yaakaar ne ku ko gis ku ne mën na laa jaaxal waaw ndax béjjén sax yomb na béjjén moom béjjén la rek yii moom ay béjjén la yoo xamante ne suñu secret bopp la. lii tey jii nii su ma demoon kii nga woo ma sa kër mu doon liggéey boo xam ne danaa jaaxal sa kër. Ah, wàllum liggéey la. liggéey boo xam ne danaa jaaxal sa kër te xam nga fu mu ne. Mhm. di jaxase sa njaboot di yàq sa kër di la jaxase man nga woo ma ñëw su ma yoree butéel bi dama koy teg fu liggéey bi nekk dañ fay jublu ci kàttanu yàlla ak mbaa. moom butéel bi li muy tuut nii. moom butéel pour liggéey la toj liggéey yàq liggéey ci kër. pour loolu. kon daal képp koo xam ne sa kër mu ngi tas problème yi xale yaa ngi coow guddeeg bëccëg bokk ndey ak baay mel ni xoolal safara ak caas liggéeyoo koy def souvent bu dégg bi moo koy toj. moo koy toj mais li nga wax rek. mais li nga wax grand frère. lépp ci ne xam nga yaa gis ñaar benn baa ngi ci waaw waaw. waaw léegi yow boo bëggee xam fan la ne te yow sax demoo fa yow jëlal bii rek yow nga teg ko sa wet rek nga jox ko noonu fépp fu mu nekk moom moo la koy orienté. orienté mën naa wax ni. beneen bi. beneen baa ngi ci suuf. allahu akbar. waaw nii la demee butéel yi nga gis ne lu mu bari bëri yëpp bu ci nekk bokkul ak sa morom. bu nekk ndiroo. la ilaha illallah te xam gis nga ñaari gula. waaw te gula bu ci nekk bokkul ak. sa morom. gis nga lu mel ni ñaari yu yu zone. rouge ak zone bi. waaw niroowuñu bokkuñu. benn bu nekk ak li muy faj. jeex na ci nekk ak muy faj. saltige fay gis naa la. Ah, lii moom waaw lii la la yëkkati. lii ay saabu la. wan ko mbooloom yëkkati yëkkati wan ko gars yi man du pour man de man ñëw naa gis naa lépp. lii moom ay saabu la. allahu akbar bii ci ubbeeku lay dox wàllum ubbeeku. ak bari moom ci loolu lay dox. bii de bala maa dem moom dinaa ci am moom. beneen bi. ah ilaha illallah. nga ñaari façon la. ñaari façon la yu niroowul. bii moom cat lay dox. wàllum cat. ak saytaane. te loolu yu semal la ak liggéey. allahu akbar. moom day toj liggéey. day dindi saytaane. Hmm. day dindi cat moom ci loolu lay dox. allahu akbar. moom mii ci loolu lay dox moo tax ñu defal la ñaari saabu. allahu akbar maanaam bu ci nekk fukki euh, càngat ak juróom-ñaar moo ci nekk. moo ci nekk. ndax léegi maanaam boo bëggee yóbbante ay garab bitim réew boo bu dee ay ci ndox la ne boo demee ba aéroport dañ koy tuur. waaw ndax dañuy naan wóorut. mën na nekk leneen waaw ba ci tamit GP yi dañuy naan du ñu yóbbu ay butéel parce que day diis. day diis waaw ci ay kilo la ñuy liggéey. mais boo defee ni saabu yi li nga soxla ci butéel yi mu ngi fii fukki garab ak juróom-ñaar xajul ci butéel. moom lañ composé. ñu composé ko liggéey ko ci ay saabu te amul benn effet secondaire amul xame amul daal dañ koy liggéey mu naturel. sangu dugg sa yaram seey kese doo takk doo naan. doo mu ngi nii. allah akbar saltige fay saltige fay. waaw ay satu. ay saltige fay ay satu saltige fay. Mhm. allah akbar mais sungu bi nu mu demee nii lii ay mel ni cere. waaw lii gis nga sungu bi moo nekk nii. allah akbar ndaxte dañoo nekk ci euh, buñ ko waxee lool ci séeréer lay doon ndax dañoo nekk ci seeg. waaw seeg boo ko déggee mooy maanaam nga nekk ci nawet ba nawet bi wàcc. Ah. bu nawet bi wàccee heure bii dañuy jóg ci ay sangat bu weex. waaw. sangat bu wax boo ko déggee day nekk cangat boo xamante ne maanaam bu nekk buy wàcc moom nga war a sangoo sangat bu weex. ndax période bu nekk ak lu mu laaj. ak garab gi mu laaj tamit. waaw mais gis naa ne genre takk yoo xamante ne xaw ma lan loolu loolu lu mu fekk. waa lii ay sangat la yu day waar. ci wàllu kaaraange ak ubbeeku waaw moom yooyu lay dox moom ci yooyu lay dox moom ñaar lañ lay jox. benn suba benn ngoon bu fekkente tamit léegi nga gis ni garab gi waaw yëngu waaw sachet yi nga gis ni waaw lii ci hémorroïde lay dox ak ndoxum siti ah, waaw lu hémorroïde na dëkk bi waaw lii ci hémorroïde lay dox ak ndoxum siti mooy mooy sachet yi nga gis ni waaw gis nga fi tamit lu ci mel ni nen nen bi waaw waaw nen bi yëngu moom koy defal loo neex waaw nen bi moom boo gisee nga gis ko fi yow da ngay wàlla xaatim waaw waaye mais saltige de daawul yëngu ci xaatim nag saltige léppam lu ñuul la. waaw xam nga moo tax ma wax la li ma la wax dama ne la lii ba muy ñëw ci man dafa ñëw ci man ci. xam-xamu xam-xam bu. Uh-huh. sell. wallaay bu teggine xam-xam bu mucc ayib. ndax bu ñëwoon ci man ci xam-xamu saltige mën na maa xiir ci ay naan mën na maa xiir ci ay sunguf mën na maa xiir ci ay. kon yow doo liggéeyee sàngara. déedéet. waaye saltige bàyyi ma waaye damay jóg taxaw bi yoon. Euh, saltige day liggéey sàngara tous ay budeel sàngara ay affaire yi. Eh, du ma ko laal nee man ci alxuraan bi la ma xiir. waaw bi ak li nen la boo xamante ne dañ koy boole ak xaatim bii. nen bee xaatim ngay boole. maanaam kuñ ne man kat damaa damaa daa am góoram ngoro ma bëgganteeg moom ay at. ay at yoo xamante ne maanaam maa ngi bëggante ak moom. déglu leen nopp waaw léegi nag. moom nangu na waaye yaayam dafa bañ. wala nangu na mais papam dafa bañ. wala moom dafa dem ba ci yaay mu bugg maa wor ma la ah nga dem ma waa ma ne la jox ma turam ak nga jox ma ko ma jox la xaatim bi ne la teg ci nen bi nga jëli ci ñaar rakka nga laxas nga xool ci ndox nga sango ko ñaari fan buñ la ko may dul sëy te dangay yow toogal lañ lay woo yow jantu ngay dem. moom lii nii. boo amul may bu njëkk ñoo lay takkal jëndal la duro moom yaayam ak papam. waaw bu jigéen yow yow sangul ñetti fan rek yow. moom nen bee xaadim bi. mooy nii nga koy teg julli ci ñaar raka xooj ko ci ndox sangoo ko. mais li nga wax yomb na de. maa la wax bi na nii mais la ca biir nen ba ak ci ci pulaay. waaw jëlee ko ci keesu nen nga ñëw jëlee ko fii. ah ci la nag. waaw loolu nen la macha allah am na solo. li nga xam ne moom nga yor nii muy euh, lii xamal euh, gen bi. waaw pour lan lii yor lay aar wala lii. Euh, day lii moom lii sama sama mbiru bopp la. ah yeneen bagage la. lii lii sama bagage su bopp la boo xamante ne bi may ñëw man ci àll ba ca laa ko indi. allahu akbar. waaw ba ma koy. ah ilaha illallah wax ma ci ay yëf ma def. cëy dama ko wax gis naa lu ne waaye lii. Euh, xam naa du ma la bëgg a joomal ndax su ma la joomalee dootoo mën a caméra. wuu man kay li ma joom bi doy na. yaa ngi dañuy bàyyi ni mu sedd bu ko defee nga bañ a xam dëgg dëgg dëgg lan moo nekk ci. mais bu ma ñëwee. fële. waaye maa ngi lay xaar jagle si le premier janvier. jagle si cey booba. waaw cosaan laa bëgg a génn lépp laa bëgg a génn eh, li gis li tax foofu noonu ma soxla la fa dama lay dugal ci biir xamb yi. ci biir xamb yi nga xamante ne bërëwërngal ak wasasoor moo fa sax. ma dugale tamit ci néeg bi nga xamante ne même su ma doon tabax étage dëkk ci kaw néeg boobu dama fay dugg fa def sama lépp. mooy sa lépp. néeg ba ren dañoo day daanu. ndax tabax bu yàgg la fa. allahu akbar may leen bii du daanu dañ koo sàmm. daa am la ko dee. waaw xamuñ la ko dee. bii mënul daanu ndax ma ko soxla. ndaxte lépp fi la ma fekk. Mm-hmm. Euh, damaa jékki wala jékki def benn néegu ñax. Mm-hmm. di fa fajee bu guddee ma dem tëdd sama kër sama néeg. Mm-hmm. ma jékki-jékki benn guddi ñu woo ne ma dellul ci néeg ba fanaan moo ko ci guddi gi laa génne samay bagaas dem ci guddi gi laa roñ yëpp amul xaar. te néeg boobu may fanaan néeg boobu ma defee sama yëf. sama lal double lit bu mag matelas bu mag lal bu neex du ma fa tëdd te léegi may tëdd moom kër gi def nañ fii ak taliba te amul buntu amul fenêtre amul rideau fa laay fanaan fa laay fanaan parce que su ma du ma nelaw damay jékki-jékki daw ñëw ci biir bagage moo tax ma def fa matelas bu rëy ma jékki-jékki ñu ne ma jëlal bagage yi demal fi fi fi la affaire bi dalee woon mm-hmm. ci guddi gi li bagage yi bëri bëri yëpp ci guddi gi laa roon yëpp dañoo xëy gis ma fa ma ubbi ma ne waaw lan moo xew ma fii la mbir mi nekkee woon fii laa am semaine ci néeg fii laa gumboowee fii laa tëxee fii laa muumoowe fii laa waxee bi ma ñëwaatee ci biir dëkk ba ci biir néeg boobu le premier janvier la le premier janvier boobu laa njëkk a muy bés boo xamante ne bés boobu laa juddu mooy sama may sama anniversaire man le premier janvier boobu ci laa juddu ci liggéey encore ci laa njëkk liggéey ci bés boobu sama papa ci la moo tax koy feete waaw i daani sama waay la jamiñal jaara busuk wala mañ se bi jaara